jërëjëf euh, cher internaute tey ñu dalal Wayndé Dieng nekk euh, membre de la communication digital de réew mi Wayndé salaamaaleykum na nga def. asalaamaaleykum mon frère Mor maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu internet yi nga xam ni ñoom ñoo ñuy seetaan euh, di nuyu waa Njaareem tamit. Wayndé yaakaar naa ne fi ñu tàmbalee waxtaan bi. Mm-hmm. mooy. Idrissa Seck démb fan lañ ko fi nga xamante ni mooy 16 conseil économique social et environnemental ci mm-hmm. biir waxam ñu daan dégg Idrissa Seck. depuis 2019 déjà moo day supprimer li nga xamante ne nii moo nekkoon 16 boobu day supprimer li nga xamante ne moo HCC. Mm-hmm. ak beneen bi mu jox 4 nee na du nekkati euh, maanaam euh, kenn du ko jiiteeti. Mm-hmm. bu dul conseil mm-hmm. départemental bu dul député bu dul président ak xawma ba naan. tey jii wax ji ak jëf gi est-ce que tey méngoo nañu wala waroo nañu. wax ju bëri démb ba tey. lu ne nit ñaa ngi cay wax nit ñi ñoo ngi koy commentaire dañ leen di considérer loolu. waaye dañuy fàttali mon frère Mor euh, yenn saa yi dana tax maanaam la nga waxoon yëpp dafay far wala la nga yaakaaroon wala la nga tegoon comme provision dafay far euh, li ñuy wax rek euh, tubaab di ko wax l'homme propose Dieu dispose aujourd'hui le contexte que nous vivons le contexte bi nga xam ne la sénégalais yi nekk le contexte bi nga xam ne Afrique moom la nekk le contexte bi nga xam ne àdduna bi moom la nekk tax na jur na li nga xam ni wax dëgg yàlla lu bari euh, waxoon na ko sénégale yi tey ju loolu dafay contexte dafay changer complètement ci li nga xam ne moom moo nekk tey euh, dañuy dund dañoo génn ci Covid 19 ñu am pratiquement trois 300 morts am ay dizaines de milliers yi nga xam ne ay nit ñi nga xam ne feebar na leen. tey ñu toog trois mois yi nga xam ne pratiquement dañoo nekkoon ci confinement nit ñu bëri yàq ñàkk seen outil de travail nit ñu bëri dem ba ñàkk amatuñu dépense mu jaral leen ñu génn ci mbedd bi affronter la maladie ñu jóge ci loolu tey ñu xool li nga xam ne moom mooy jaspora bi qui représentait 1300 milliards yi nga xam ne doon dugg ci réew mi tey pratiquement dafa nekk au ralenti tey 25 pour cent ou bien pour cent moom moomu si ñëw parce que fi nga xam ni fa lañ doon tibbee ñoom dañoo tëji seen i bunt tëj seen i porte parce que tout simplement jóge nañ ci confinement delluwaat si reconfinement parce que deuxième vague bi tey daf leen dal daf leen dab te moo ngay faagaagal foofu nit nga xam ne sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ne la ñu mënoon mënatuñu ko pratiquement ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñoo leen di yóbbante ci li nga xam ne moom la ñu mën a nekkee foofu mu nekk une situation bu doy waar les partenariats bilatéraux les partenariats multilatéraux tey jii pratiquement seen bopp lañ tal soo xoolee États-Unis euh, soo fa nattee am na pratiquement trois millions de chômeurs wala qui sont en recherche de l'emploi nga dem France la même chose ñoom ñoo ngi ci récession nga dem Angleterre la même chose tous ces problèmes la bi nga xam ne dafa taxaw ñun waa Sénégal ban disposition lañ ci war a def lañ ci war a taxaw ñun ñi nga xam ne ñooy parti réew mi ban taxawaay lañ ci def parce que dafa am ñaari mbir yi nga xam ne dafa taxaw suñu kanam bi ñu génnee ci élection yi Ou bien on cherche le kaw ou bien on cherche la paix des esprits et des cœurs pour le Sénégal parce que bu nañu fàttaliku la président sa Seck bi mu demee Touba li ko sëñ Mountakha dénkoon ne ko fa nga teg sa tànk foofu la mu dem Tiwaawoon sëñ Babacar sëñ Mansour ne ko jàmmi réew mi si sa loxo la nekk loolu il est assez conscient de cela parce que da ngay toll nit dana toll moment ba nga xam ne da ngay fàtte sa bopp da ngay toll moment ba nga xam ne da ngay fàtte fa nga bokk da ngay fàtte par lan tout simplement pour mettre au tout simplement le patriotisme mettre au devant le sens du devoir par rapport à li nga xam ne mooy doxalin réew loolu moo indi tey jii véritablement ñu tegendi lépp li nga xam ni moom la ñu waxoon ñu tegandi lépp suñu comportement pour mettre lan parce que nañu fàttaliku dafa am li nga xam ni dañ ko defoon suñu programme mooy lan le Sénégal au fronton de notre programme le Sénégal d'abord su fekkee ñun dañuy wax ne la Sénégal d'abord te duñ ko jëfee parce que très simple de dire de beaux mots c'est très simple d'être un bon rhétoricien. Mais ce qui est important, c'est tout simplement que les paroles et les actes soient en adéquation. te aujourd'hui la ñu waxoon ne Sénégal d'abord Sénégal yittewoo Sénégal soxla ci Sénégal googu la ñu mettre vraiment notre personne. à mais non non Wende est-ce que loolu nañ ko nangu tey jii est-ce que paroles yi ak actes yi ça rime parce la mesure où wax naa la premier bi quatre points yi Idriss Seck waxoon. Mm. bien vrai que même s'il a dit le Sénégal d'abord. Mm. est-ce que contexte bi ma nekkuñ ci contexte boo xam ne nii tellement diable tellement boo xam ne gravité bu garaaw gravitisme bu mu fii tey jii Covid bi dañu waxtaan rek ko tamit. Euh, Covid bi. Ah. ni nga xam ne waruñu ko laalewuñu si wàllum feebar. Ah. nam ñu waroon laale ak comme nu mu laalee kon tey ji soo demee Brésil nga dem États-Unis nam leen laale xëy na yàlla dimbali nañu ba laalewuñu lool mais nim ñu laale c'est tout simplement c'est une question économique hmm. question sociale question environnementale tey ji Covid bi dafa desale nga xam ni notre système sanitaire tey ji da am ay sooxe yu bëri notre gestion au niveau gouvernemental dafa poser lu bari te yooyu yëpp tey ji maanaam euh, poos yi bënn nañu ñëpp gis nañu yéen ñi nga xam da ngeen nekk dans le petite moyenne entreprise tey la ngeen doon am wàññeeku na ñi nga xam ne tey jii dañ doon euh, euh, le secteur informel bi nga xam ne dañoo gën a impacté par rapport à ce ce qui se passe aujourd'hui loolu la ñu jël ne wax dëgg yàlla nañu taxawu euh, sénégalais nañu jàppale sénégalais nañu produire tout simplement de l'intelligence pour accompagner le président de la république par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour trouver des solutions adéquates pour trouver des solutions yi nga xam ne wax dëgg yàlla dañuy régler le problème qui se pose au niveau du Sénégal. jërëjëf mbokk internautes yi leen fàttali ne Wenda Dieng la euh, membre de la communication digitale de Rewmi ñuy waxtaan ci Idrissa Seck bi nga xamante ne nii vraiment prenez pour jàppale Macky Sall yaakaar naa dañuy ñëw ci deuxième pàcc bi. Mm-hmm. deuxième pàcc bi euh, ki nga xamante ne nii mooy euh, le président Idrissa Seck même ci dans son discours. Mm-hmm. nee na gars yi yàgg nañoo wax sama dee politique mais ma ba léegi maa ngi si est-ce que ce n'est pas la mort politique définitive d'Idrissa Seck. Euh, euh, nit ñi peut-être mën nañoo xalaate noonu si jamono ñu ñu toll parce que nit sooy xalaat ci lu bari mooy nii euh, da ngay def véritablement quelque chose qui li ngay xalaat li ñëwagul. ce que ce que les gens fair de la météo politique. Mm-hmm. aujourd'hui nous sommes pas dans cette logique la li nga xam ne moo nekk logique nañu fexe ba sénégalais lii ñu def. wala décision bi nga xam ne jël nañ ko mu sénégalais yi gis seen bopp sénégalais yi yëg nag il y a une amélioration par rapport à leur vécu quotidien il y a une amélioration pour la question de l'emploi parce que tamit il faut dire que jeunes yi diplômés yi et les jeunes qui ne sont pas encore formés y en a tellement ici au niveau de Diourbel on rencontre tellement de jeunes yi nga xam ne on dirait que à chaque instant da nga leen romb si mel nga yaakaar ne dañuy dem xëy fekk ni tout simplement toog seen i kër dañoo génn seen i kër ngir am desanteeg yàlla sunu borom parce que seen lépp si nañ ko wékk si seen loxo yàlla loolu nag nañu fexe ba loolu yaakaar yooyu delloo si nañu fexe ba espoir boobu delloo si te loolu la ñu nekk te loolu la ñu bëgg incha allah rabbi li nga xam ne moo nekk avenir politique gu euh, le président sa Seck loolu si loxo yàlla la nekk nañu def ba nga xam ni ba Sénégalais yi kontaan si ñun bëgg si ñun ne il y un changement notoire par rapport a la gestion de ce pays. par rapport ak Ousmane Sonko bi doon wax yaa nga diil par rapport ak Ousmane Sonko bi doon soutenir ne opposition bi dafa xaaj ainsi de suite aujourd'hui il xam nga quand on parle de deal ça veut que on est en on est en de de de de de de faire des choses yi nga xam ne qui son nébuleuses or li nga xam ni moom la ñu nekk di def lépp li nga xam ne am na ci tey su président Idrissa sec sacrifié boppam le président Idrissa Seck sacrifié son parti pour tout simplement xam na ni lii mun nga xam ne fa la jublu. te bien vrai que mu nekk intérêt sénégalais yi xam nañu ay jam-jam dina ko ci fekk xam nañu ay dëgg sërëx dinañ ko ci fekk waaye loolu yëpp da koo jël teg ko ci gannaaw parce que li ma la waxoon sànq rek moom moo ci am mooy lan tout simplement le Sénégal d'abord le Sénégal au Sénégalais pour sortir véritablement des problèmes qui nous imposent véritablement à notre résilience. Euh, maintenant, vous êtes allié avec euh, la paire, on peut dire, avec la mouvance présidentielle. Comme donc, remis à que pare na pour collaborer avec le ministre Dame Diop bi nga xamante ni mooy la le coordonnateur ici. àggaguñ ci loolu parce que fu mu nekk nii nañu xam ni les questions politiques dañ koo jël tege ne ko nee. non mënoo leen ko tegee boobu defal ndànk defal ndànk. Mm-hmm. Euh, su ñu demee ba fàtte suñu bopp fàtte suñu parti mooy ça veut ko dañoo jël des question politique tegee ko nee li nga xam ne moom moo am solo. mooy sénégalais yi li ñuy dund li nga xam ne moom moo am solo mooy fexe ba sénégalais yi guute gi ñu nekk ñu fexe nu ñu leen ci génnee nu ñu leen fexe ba ñu leen proposer des solutions yi nga xam ne des solutions immédiates parce que tey tey tey tey tey jii ñu toll ni il nous faut des solutions immédiates pour régler beaucoup de problèmes yi nga xam ni tey jii am na ci àdduna bi am na ci biir Sénégal te loolu moo ñu intéressé ba ñu paree ci loolu après les questions ñu doog ko jubli ci. dernière question Wende Dieng Euh, selon vous, à tant que peut-être membre de mi et parlons objectivement, mm -hmm. il dit, est-ce que il dit euh, crédible désormais aux yeux des Sénégalais ou non La crédibilité, le président Idrissa xam nañ ko ci lan mooy ni la capacité de rebondir comme ni mu ko waxee euh, démb moo di ne tàgg nañ ma plusieurs fois sama mort politique mais ba tey maa ngi nii il est sorti deuxième aux élections ku waxoon tous les analystes politiques yi nga xam ne dañ doon taxaw di wax ne Idrissa Seck qui représentait pour cent va se dégringoler pour représenter 2 ou 1 pour cent mais tey jii am na leneen li nga xam ne feeñ on s'est retrouvé avec 20 pour cent et retrouvé deuxième derrière le président Macky donc ñi ngay xam ni wax seen xalaat rek la ñuy waxee mais li am solo mooy la ngay defar sénégalais ak sénégalais li tax ñu wóolu la ci par rapport ak la ngay def ci loolu nag suñuy loxo la nekk on fera tout pour satisfaire véritablement les besoins des Sénégalais on fera tout pour apporter des solutions pour wan ni aux Sénégalais que on est au pouvoir on est avec Macky Sall mais on a apporté un plus par rapport à la gestion de ce pays. jërëjëf Wenda Dieng jërëjëf Cheikh Internet yaakaar naa fii la ñuy yem ak yéen seen émission question de l'heure dalaloon ci Wenda Dieng di leen jox doon daje ci benn invité ak benn numéro jërë ngeen jëf.